Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Grâce à ses composants riches en vitamine E, ma peau est hydratée et éclatante au quotidien. BioCare révèle l'éclat de votre peau. Yes Hotel, Dakar Almadi. Radio Leral 96.1, encore plus proche de l'info. Avec Radio Leral, le Bravia Hotel Ouagadougou, vous aimerez déposer vos valises chez nous. Téléphone 00 226 25 32 97 97. Shopping.com le marché digital qui vous simplifie la vie. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Au oh, Royal, Burundi. Sénécar Tour, une nouvelle vision du transport. Emprise remercie ses partenaires Complexe Sofia, Pape Couture, Jelabia, Kumbis. Classe Mode by Jeba, Jean Jewerly, Nabu Création, Deka Paris, Rita Hair, Angels Beauty, Loupop Shop, Aja Bijoux, Bomba Partenaire, Ara, Beaux-Arts Couture, Be White Couture, Priceless Design, Yudi Style, Nima Style, Nebedaï, Mileisi, Versailles, Karija Kadija, Sengold, M60, Nawel Couture, Kova, Kokogi, Safa Collection, Plume Serrère, Bomba Design, 6.9. Omar Wali Fashion, le tailleur du peuple, centre commercial Touba Sandaga, Couture. Une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Ah, Marodi ne vous propose pas que votre série en prise. Retrouvez-nous dès ce samedi 2 avril pour le premier épisode de votre série Impact saison 2, après le JT de 20h sur la TFM et sur Marodi TV. Et ce n'est pas tout. Arémer Chaba revient pour une saison 2 tous les lundis et jeudis à 21h15 sur la TFM et sur Marodi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2S TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions. yoon tamit man la lay wax que ni man pap Demba la peuk yéen s'il te plaît dama bëgg mu dugg sa bopp bi répété na la ko ba son et arrête tout ce cirque là s'il te plaît dama yuxu de. yuxu te suma yuxé dama dina bu yuuxu ma yuxu comme ça ñi ñi yuxu li ngeen doon nëbb yëpp mu fay wax bi jeex c'est quoi le problème. Ah. lan moo xew fi lan la. ki ki gisul dara lu yow. kafteer bi la ko doon expliquer naka lañ ko war a utiliser. ok mais booy yow sama sot bi dala jàpp sax sama kër la seen kër la def leen lu leen neex ak saa yu leen neexee on est d'accord voilà bonne nuit. adieu fils. moo xew ak Yérim. daf ma doon moo xew ak Yérim. dana xewul bee c'est moi. waaw oui léegi la ñuy xaar man dama la koy wax de fi Je nekk nii jour de plus ko supporter wala bëggatoo nekk sama jëkkër Je loolu laa bëgg soo bëggee suba suba ñu mhm. tu me le promets. ma waaw ah. ñibbisi nga ñibbis naa alors fii li ma la indi tey yaa ngi reere non lii moom da ngay fay gëj dëree jàmm de lii du Ma, du dëgg du dëgg du damay dee ma Ma maasoo de teg na leen seen place ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ba nu mel ne ay weñ ba pare li ci gën a neex mooy fase na kinne bal ba tàkk na seen kan kinne Wah, nii la kabe bi demee c'est pas possible ñëw turki jam yàlla kenn la mais attention de kinne nekk na koo xam ne kàccoor la day xeex te du bàyyi faatu moom moo ci next Rabi. baa xam nga ni nga ko waxee noonu lay ame hmm. Faatu ak Rabi dinañ ma abal ci biti. dinañ ci topp Rabi moom ay affaire am amul solo. xoola <laughs> jàppuma ko sax comme jabaru Mansour jàppuma ko loolu dama ko éliminer. Massaer. Massaer. <laughs> ma ki nekkam sama wet day gàllankoo sama sëy fexeel mu sori ma ma mën a nekk ci jàmm. kii du wax du yàq Massa dalaa ndopp dof et puis sax ah mën na nekk bunt bi nga xam ne moom moo nar a régler suñu problème. loo bëgg wax foofu. ah dama xam ne rek ne. Massaer xale la moo nekk ki nga xam ne mën na la jox li la sa jëkkër di laaj maa yow yaa ngi dégg li ngay wax yow danga ma bëgg digal pour ma dem tëdd ak Massaer Mansour ma gëmloo ko ni nga moom moo jur doom yow yaay nan nga mën a lu saltee nii ah Oly gëm naa ne day amoo meneen pexe de de façon danga war a yaay loolu ci àdduna duma ko mus a def bu yeboo nga génne ko sa xel ba mu set wecc ndax duma ko def xalaatuma ko def. salte yooyu salte yooyu fu ma koy def ma ko def de. koy def nag de su la ëmbalee yow daal la nga biir rek soo ëmbee ma seer moom dinaa lijjanti ay mbiram après. en plus nga koy wax nii di nga ëmb defu ma. leer sa bopp. mu mënee digal lu mel nii déedéet yaay du mës a sant doomam muy def lu salte lu bon nii kii est-ce que man moo ma sukk jur sax. wuli li man de xaw ma mère boobu lan la la sant waaye personnellement man mënatu def dara lu ma bett dara mësuma woon xalaat ka dina egg fii dama wax ba mar. kañ ngeen di comprendre qu'il faut intérêt nek rek égoïste la. yow di wax xam nga ne sama yaay lepp lu ñu sant def suñu jamm yaram tax waxati mukk jéele ñàkk naa jaari sanku na ànd na Pape Demba dem bàyyi ma man dong ak sama kër awa wéetoo maa ngi fi et puis calme-toi hmm? lan moo xew ak jaar yi du kenn ku dul Rama Rama tas na sama kër jël sama doom bëgg ko moom waaye dina xam ne ba may jur sama doom bëccëgu ndara kàmm laa ko jur waye xamul ne doon na loxom ci ëkk lal na fu mu warul lal. Eh. xam nga lan nga wara ñëk def nga calmé wu d'abord parce que bëgguma nga wax wala nga def euh, looy rëccu ëllëg hmm? bàyyi affaire yi ak man. do ko jëli tey do ko jëli ëlëk ma man mi may ndayam ma koy jëli jam indi ko sama kër ta xam nga lo bëgg. lu ko guddal ak lu ko gàttal bu ma yëngal ci biti toppal sama baaraam bi ah, général Faye na nga def ça va baal ma ci ni la woo heure yow ana sa mag ana uli ne tuuti nelaw nga bu baax yaa ngi ci jàmm waaw yaay man maa ngi ci jàmm bu baax gis nga doo ma sonal doo yàq sama journée tey sa mag ma ngi fi walla nekku fi defe na li nga ko sant li tax nelawul démb ci guddi mooy waxtu bugguma ko def bugguma ko def

Grâce à ses composants riches en vitamine E, ma peau est hydratée et éclatante au quotidien. BioCare révèle l'éclat de votre peau. Héritage Couture, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Ah, Maroudi ne vous propose pas que votre série Emprise. Retrouvez-nous dès ce samedi 2 avril pour le premier épisode de votre série Impact saison 2, après le JT de 20h sur la TFM et sur Maroudi TV. Et ce n'est pas tout. Arémer Chaba revient pour une saison 2 tous les lundis et jeudis à 21h15 sur la TFM et sur Maroudi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2 s TV et sur votre chaîne YouTube Maroudi TV. Marodi, inspiré par vos émotions. xëy man ban façon yaay laa li foo nekk mu li ma nen tuuti baby girl dégg ndigal ba bëgg a lu ma ko wax mu def mais bi bu mu ko def bu mu ko def bu mu ko def yàlla suñu borom mbaax mi déglul sama ñaar bu mu ko def bu mu ko def bu mu ko def amay see wat amay see wat fa yàlla suñu borom baax mi déglul sama ñaan déglul sama ñaan yàlla xanaa duñu naan ko ci jigéen ju bon la ndey ju bon la naka laa mën a yónni sama doom mu def nii 子です foogoo naan doo ñëw sax ah la may soree nii kaay toog fii. man mii sax xaw ma lan laa fi def ak lan moo ma fi indi fan la toilette ci nekk. chambre bu nekkoo fu. Ndiaye looy def nii man lii indiwu ma fi de. lii bu la fi ñëw kanam moo la fi. Massaye arrêté jabaru jàmbur laa. góoroo gor ma fi gën borom kër waaye jéegoo jéegit maa fi gën a baax kër daf ma fonk teg na place moo tax kuy balbalu xamal ne man ak naa ba pare waaw waaw Fatou alaaji waaw man tare ba noppi il faut ma dem quoi tey du mun a ndékki déedéet ndékki li pare nag kaay ndékki non merci beaucoup mun nga ndékki sama man dama tare maa ngi dem déedéet ak li ma def yëpp pour yow ñëwal ñam ci bala nga dem ubbeeku tuti tardé ma tardé ma nopi Mansour lan la def pour di jot traitement bu bon bi ci bi kër gi man fi ma fi aaw buru këram faale wo ma toppatoo woo ma da ngay melni bo ma gisee sa boutique yi ngay gis nga ma jëppi te man defuma la dara Fatou bul ma indil waxu suba tel dama tardé lo rek la man damay dem tardé wulo ngay taxaw wax ak man tardé wo. tardé wo. lentil tardé wo. bëgg dem ko ëri nekké fa mom ngay bëgg def Wayé du affaire tardé Wa wacc nag daano ci gëna gaaw bëcc lan awma ci droit Amo ci ben droit uli sama jabar la xoolal làqum sax dafa doy kër uli lay ndekkee ci. Ta amo ci droit te li ngay def ngay melni ni xusmaa di yappar yappari góor wat bang bi nga doon waaye di nga xam ne mën nga koy digaaleel man jéeg bu pare bi yi nga koy def waaye man doo ko def di sàcc kay di làqatu ñàkk fulla Yeah. <laughs> una, naa una. Bila billaay sama dund gi dee wute ko sax foog nga bàyyi ma may ma jàmm li ñuy def nii jëmul kër te amul mucc. Uli foofu nga juumee Uli Uli tey war nga war nga mën ni tey maa suñu mbëggeel ba léegi jeexagul. Massaer fii dara amu fi. tan na si set si bi. waaw sama cër la na nga def. waaw ah xaaral ma servir la nga naan leen. baax na soxna soxna Rama. Anu uli boobu ba léegi maa ngi koy wo boîte vocale rek jot. ah eh, Uli dama ko eh, yoni won sama kër sœur mais defet xaar xaaral ma seet fan la toll. d' accord yàlla suñu borom aaral ma wuli fépp fu munta nekk C'est quoi, tu es surpris de me voir Lan tu tabaxam fii nii. yow jox sama chèque ba de hmm? mais oui, la galanterie, non mais ma dafa sax comme ça ma la chèque Je je ko ndax man suis ma dara Jamono si yow dama yaakaar ne sa kër nga nekk wala kamala ko nga je me le suis permise toute seule. ok. et puis je vois que les da nga nekk en compagnie. excuse-moi du dérangement ah. moi, là. la. bundu Boy, ngi nii. réfléchir nga bu baax parce que occasion bi nga am c'était pour woon tekki ba faaw parce que lii. moo la doon sauvé ci lu bari malheureusement. kañ ngay dem. parfum bi xàmmee na ko de parfum bi parfum peste bi la. soxna si rus naa la torop de yaa ngi dégg jaaral ni moo la. xam nga dama dañ kumpa faaw ma lijjanti ku fi nekk te xam naa. fii kenn nekku fi am na ku fi nekkoon d'accord ñëw na wax naa waxam tam la yoonam dafa ni moom nga jëgi fii uli mu fi uli fii uli moo fi nekk te dinaa ko démasquer.